pikkati naa ndax président Macky Sall day ma ngay nelaw ba yandoor laaj ba samp na tribune yéene kaay ne ma la ma la mën a xamal day mooy bopp président Macky Sall daanaka mënees na koo méngaleeg sabarug ñu faaleen yi ku tëb ak daaneel raas gis gi ma ne la xampante lay doon sabar gu pëcc xoolu nee nga ca bopp président yéene kaayub groupe des médias bi ne ma président Macky Sall day jamono ji yëngu-yëngu réew mi jàppal bàyyi gi miñ ci boppam yokkuk njëkk yi njëkk yi nga xam ne dañoo yokk bu baax a baax ci réew mi sénégalais yi xamatuñu fu ñu jëm miñ ci boppam wàllu fiscalité bi am jiixi jaaxa mi ngi ci boppam dëgër piis maak fu waaye lal ñu ne la laalil du fii mi ngi ci boppam moom président tribune yéen kaay ma xaw ma kuy jaxle de waaye président Macky Sall ngay jàppale jamono jii réew mi quotidien ne ma moo ne day président toogul taxawul ma woon ca Nations Unies réew mi quotidien ne ma président dafa doon jaay nag ay plan d'action prioritaire waaye président day noppalu fa ndax itam yéen kaay bi mi ngi may xamal ne diaspora dañoo taxaw ca buntu mbootaayu xeet yi man la di fa wéli pande président Macky Sall le soleil yéen kaay ne ma président day ñi ngi wax ni dañ koy yuuxoo waaye luñ ko yuuxoo yuuxoo am na temps nag Afrique rawatina réewam di Sénégal daal dinay wax nag ci wàllu terrorisme bi nga xam ni dafa lal ñàkkug jàmm gu métti ci dénduk Afrique woote la nag ab juboo diggante Israël ak Palestine ma ne la kàddu yi Macky Sall daal di yëkkati ak itam jéego yu mu def ci Sénégal tax na Financial Times nekk foofee ci États-Unis ma ngay nag rafetlu jéego yi nga xam ne président def na ko ci Sénégal gii Vox Populi ne ma moom président Macky Sall vaara ko dab saan démbam la mu fi dige woon tey defu ko loolee moo président Macky Sall professeur Moussa Diaw ne booy dige di dige di dige ba yàgg na gisuñu suñu digee gi loo waxati gars dañ ko dul gëmati en président Macky Sall loo ci mënti dégg tribune mi ngi may xamal ni booba daal la ca nekk bari bu jaxasoo wuli dinañu jaaxal Mamadou Lamine Diallo ci L'As Quotidien ne ma président Macky Sall daal li jaxase boppam lenn la Mansour Faye mooy dofeem maanaam bu fi jógee moom la bëgg a forcé teg ko fi lii moo nekk ci bopp président du leneen Landing Savané daal dina hey wax ji lenn la ku wax ci politique jamono ji da a wax wax ni puusul paasul demul arrièreul am na nag fu ñu déggoo ci élection maire yi mu di nag maire bu ci nekk sax askan moo lay fal directement waaye am nay question yoo xam ni ma nga des de adjoint maire yi ñu leen di falee déggoogunta bulletin unique ba ca statut bu chef de l'opposition ca ak yeneen le quotidien le quotidien ne ma lu ci mënti am daal président bu cour suprême moom ma ngay xupp nee na nag liberté de presse warut a tax ñuy jël ay kàddu yu ñagas di ko teg nag ci ndoddu yenn autorités yi les ko yéene kaay ne ma avocat lay wax xamal na leen fuy yoonu wax ci wàllu presse waaye nag xupp na leen waaye Sénégal gii dañoo am sunu xew-xew mujj nag waajtaayu dalloo masaalikul jinaan tribune yéene kaay ne ma junni ak juróomi téeméer ci ay élément daal dinañ leen di mobiliser réew mi quotidien ne ma juróomi téeméer juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ci ay nit jàpp nañ leen juróom-ñeen fukk ak juróom-ñaar ci ay laxasaay yàmbaa jàpp nañu leen le quotidien le quotidien ne Dakar ci boppam lañu faf teg bët ndax inauguration masaalikul jinaan vox populi ne ma xoolal ma quartier général bu xalif général des mourides bi fii ci Colobane dañu koo mujj nag soppi ab bërëb boo xam ne dañu ci kolobaan taalibe yi dañ faa riir wutali laas ne ma masaalikul jinaan ci boppam dañu koo daal di wër ndomb cey sëriñ Tuuba moom 24 heures ne ma ci waajtaayug masaalikul jinaan gii lay profito ngir wax leen nag kan mooy El Hadji Mbacke yu fay wax leen nag ndaje bi nga xam ne Cheikh Ibra Fall Baabul Muridina daje woon na ko ak maam bu jigéen bu Mbacke yu fay mi nga xam ne moo toggal xalif général des mourides fii ci Ndakaaru ak dee Samba Mbay la mu doon toggal maam Cheikh Ibrahima Fall waxit leen ngëm-ngëm ci njabootug Mbacke yu fay fa mu dooree seen digg sëriñ Tuuba ak tey la ca des am nag bambulaa gu rëy goo xam ne am na nag ci ndoddug ñu ñu duppee pupille de la nation ab office lañ fa daal taxawal waaye daal directeur ba ak i ñoñam ñoo fa nekk di lëmbe di def lu leen neex directeur ba di Mamadou Saliou Diallo dañu koo tuumaal ni ci ñetti at jënd fi ñetti woto yoo xam ni bokkuñu ñaar fukk ak juróom benn million ci suñuy koppar mu jagleel ko ab colonie de vacances fanweer ak juróom ñaar ci ay xale dong ñoo demoon ci la Pape Njambe seen daaf bu boîte ba daal ne at bu yàlla sàkk ñu contrôlé ñu bu fa bambulaa amoon ba tey feeñ na ñu dem seeti tàggat yaram ak tribune sport El Hadj Ousseynou Diouf day la jox kàddu moom El Hadj Ousseynou Diouf ci yéen kaay groupe des médias bi ne trophée FIFA bii ma ne la Messi daf ko daal di mérité juróom fukk ak benn ci ay but la daal di dugal nekk meilleur buteur bu Liga te it bu ñu fàtte ni FIFA performance personnelle lay daal di sargal ñu daaneel ak la am ca géejawaay ne ma Njaay dragon day ma ngay woy ca waxam ja na nag na bërëb ba gis na waaye dragon la bu dee nag dañoo bëgg a weddi ay waxam yii moom Ndiaye dragon nañu daal di dem génne la fa nekk won ko doomu imaam ba ci boppam ci yéenekaay bi ne man la may dégg di yuuxu nib koson kenn mënumaa gëmloo ni tuyau d'évacuation ndox la am na lu nekk ci bërëb bi te ñu nit duñ fa nangu fanaan tànk génneew ñu loolu ku mu doon yow ndax di nga fa nangu fanaan laaj ba samp na sénégalais bu ne na ca tontu yendu leen ak jàmm ci Sénégal. chee tët tët mais yow sa waay yaa ngi ci kanamu ordinateur bi